alors est-ce que doo wàccee masque bi nag bëri nga ñu ngi lay nuyu. yéen a bàcc ma sàmm. ñu bëri apprécier ko gis nga fan yaa ngi yuuxu nan nga nan nga réussir interprétation. waaw nag euh, li tax ma tax ma réussir ko mooy dañ ma jox rôle boo xam ne man moom laa. maanaam lu Baye Fall bu ñu la ko joxee te yow nekkoo ko doo ko mën a jouer carrément te man nag dëgg-dëgg Baye Fall laa moom loolu tax mu mën ko jouer carrément hmm. loolu loolu tax daal mu ko mu mën ko jouer carrément ba gars yi yëg seen bopp. mais soo xool ñun série bi xamuñu bànn nga ci xamuñu lan nga. ah non du ba du bandi mais dafa nekk Baye Fall boo xamante ne dafa am xaalis mais dafa daal mu dund ay situation yu métti nag bëggoon ñëw venger wu yaa ma dégg. loolu mooy sama rôle. mais Baye Fall bu dul jéggale la dafa mel ne day. waaw Baye Fall day jéggale mais foog mu wan la moom maanaam Baye Fall nan nu mu amee doole pare après mu soog laa jégal bis. ban rôle nga ban séquence nga joué am ci retour boo xam ne nit ñi ab. waaw mooy bi ma doon root ci bi Sikar boobu moom xam naa ne murid yëpp yëngu lañ moom te am naa si réussite bu baax a baax. vraiment da nga ciy am frère. ma ciy am. koo bokkoon ndey baay. non amu ci frère. Ah. amu ci bi sa frère <laughs> <laughs> non <laughs> alors à suivre la <laughs> waaw. merci waaw jaa ngeen jëf